ci ndigalul xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké waaye tam ci kilifteefu ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall di Baye Fall yi armée li Touba Baqiya doon nañ ko si tal ci ajuma ji mboolee mag ñi ak ndaw ñi ak jigéen ñi kenn ku nekk daal di xëyee sa kër yor sa gopp wala peel daal di jubali fi nga xamante ne nii mooy armée li gën a mag ci dëkk bu sell bi ci Touba ngi daal di bay ñax mi nga xam ne nii jamono ji jéggi na dayo ngir nawet bi ndox mu bari mi nga xam ne nii wadd na ci dëkk bu sell bi ci Touba ah, mbale mi de moom ni ma ko mooy euh, sant rek sant sant sëñ sant sëñ Touba rek euh, maanaam euh, doole sant bu wér rek ndax euh, lii moom ak cant la su nee ba am occasion liggéey sañ Touba dañ ci dañoo war a sant doole ji liñ santoon fi nekk ni bi may ñëw li ma bàyyi ci dëkk ba lu war a ñëw tàmmuñu ay oto yu leen indi kenn xamul tool toll nga xam ne nga xam ne moom lépp li war a ñëw lépp su ñëwee yaakaar naa ne moom euh, biir bi moom kenn du fi xaj ci geneen wàll ga ci administration li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum armeel yi li armeel yi di fees fees terewul ñi nga xam ne ñoom ñoo di aadama yi nga xam ne dañoo indi seen ay néew file ci armeel yi ñu ngay wëy def yu mujj ngir mën a denc seen mbokk yi nga xam ne ni dañ leen faa andi maam Cheikh Sarr mi nga ne mooy secrétaire u armée yi di bàqee nag mu ngay fësal ne jamono ji lu juróom-ñaar fukki junniy doomu aadama jamono ji ñi ngi tëdd file ci bàq ya plus de soixante yoo xam ne ni ñoo ngi tëdd si biir soixante-dix mille waaw ñu ngi tëdd fii moom waaye comme nekkagun si fin d'année moom defagun suñu rapport duñ mën a tëb tëb wax exactement li fi nekk. waaw waaw soixante-dix mën nañoo jàpp ne moom fee cent yi moom. ci tëjkal waxam moom maam Cheikh Sarr di fësal ne jamono ji dañuy jànkonteeg ay jafe-jafe ci yenn doomu aadama yi nga xam ne dañuy jóge ci neen dëkk yu dul Touba ngir li nga xam ne moo di certificat de décès xam ne nii kenn du autorisé kenn mu denc te indiwoo ko ñoom ñooñu le dañu koy fàtte yenn saa yi di indi wala ci bàyyi xel moom maam Cheikh Sarr leen ñaax waaye di leen woo képp koo xam ne yaa ngi indi sa néew fii ci Touba Baqiya nga indi nga xam ne moom moo di certificat de décès bi lee parce que da nga koy laaj nit moom lu lay wax nan naa la ah kii daal saa waay këram la gaañoo rek danoo xamul ki nga xam ne moo gaañu këram kooku moo war a njëkk gën a am certificat décès kooku moom obligatoire dafa war a am certificat décès ndax ku tëdd néegam rek faatu moom war na noo xool lan moo ko faat mais nit ñi dañ koy yombal ba nga xam léegi nag moom Touba moom daanaka sax Touba moom problème bi demee a maîtriser ñoo ngi dem si chef de quartier yi ndax ñoo ngi leen fu ñu toll dañ ne ñooy chef de yi ak di délégué yi ñu leen koy defar bu dee village yi daal si la ne am problème mais ñoom it danoo war di dem ñi nga xam ne mooy seen chef de village yi suñ demee ci chef de village yi ñu defaral leen ko ab fàttali armeeli Bakhiya ñi ngi ko daloo ci 11 janvier ci atum 2014 ki joxe woon ndigal li di Serigne Sidi Makhtar Mbacké xalifa général des mourides armeeli li nag yaatu lool toll ci 45 hectares jamono ji lu ëpp juróom ñaar fukki junniy doomu aadama daal di fi tëdd